asalaamaaleykum mbokki xarit yi ñuy seetaan ñu dalalaat ak jàmm ak salaam ci seen première émission culinaire bi ngeen xamante ni Beurre Sofia moo leen koy andil weeru koor bu nekk fii ci télévision Futur Média xam su ngeen ne Beurre Sofia xam ni mooy bëri ci vitamines yu bëri yi beurre Sofia enrichi en produits laitiers beurre Sofia saf na neex na te sakkan na xam naa ni kenn dootu leen ko présenté donc tey nag dañuy dem andi ay brochettes de bœuf au pesto tey moom la beurre Sofia andi xam nga ni soo gisee bâtonnet brochettes yi xam ne dañuy waaj a piqué donc li composé suñu ay brochettes de bœuf au pesto nag lenn rek la maanaam mooy sauce pesto ñu ko defaree lu ci mel ni basilic lu ci mel ni ay pignon de pin huile d'olive am fi soble am fi tomate am fi courgette am fi banaan plantain yi dañ koy saaf pour mu accompagner sunu ay brochettes am nañ fi tamit laaj donc pour ñu mën a démarrer sunu ay recettes dañuy jéem a mariner maanaam dañuy mariner li nga xamante ne mooy sunu yàpp bi ñu ji pressé benn jàpp ñaar ba ci ñetti doomu laaj parce que marinade bi daf ciy am solo daal di jël sunu jonge épices sànni ci sunu poobar herbe de province moom it dafa neex ci lépp li nga xamante ni mooy mooy brochette huile d'olive mais tuuti rek soxlawul muy bëri donc ñu ñëw yëngal aligné ko ba mu rafet parce que dressage bi tamit soxlawul sax ñu ko ñoo leen koy waxati parce que xam nga fii moom cuisine Sofia dañuy taxaw ci lépp li nga xam ne mooy dressage bi goût bi day ñëw donc ñu terminé ak li nga xam ne mooy tomat cerise bi waaw ah, léegi nag dañuy dagg suñu ay rondelles de banane plantain pour mu changer tuuti frites yi andi touche sucrée bi nga xamante ni daf ciy neex donc léegi dañuy jël sunu sauce bi badigeonné ko duñ ko yërëm benn yoon marine waale li nga xam ne mooy légumes yi parce que ñoom it jotuñu am ci marinade bi ñu di jël sunu banaan plantain yi nga xamante ni moom it annoncé nañ ko léegi léegi nag mën nañu commencer sunu dressage ñu jege si nag sunu ay brochette nga ne brochette nag xam naa ne séeréer yaa ngi seetaan. daan ci jël sunu ay banaan plantain moom tamit mu changé tuuti sunu ay habitude maanaam li ñuy def ci ay frites daal di jël nag li nga xamante ni mooy sauce pesto bi ñu defoon léegi ci brochette yi tibb ci tuuti def ko ci biir plat ndax sauce pesto yi bu ñu fàtte ne ay soos lañu yoo xamante ne dañu ñor ba pare donc mën na ñëw accompagner sunu ay brochette andi ci benn touche bu assez spécial waa gis ngeen comme ni ñu ko waxee léegi brochette yi nga xamante ni dafay changer sunu ay méthode de brochette ordinaire yi nga xamante ni moom la ñuy faral di def nee naa la sauce pesto bi dina ci ànd benn touche boo xamante ni yow mi koy reprendre di ko mën a comprendre donc mi ngi nii recette bi yàkkal nañ ko séeréer yëpp Bonne Sofia nag di leen jaajëfal comme ni mu koy defee chaque weeru koor bis bu nekk mu andi leen recette bu bees beurre bi ci vitamines yu bëri yi beurre bu sakkan bi bër bu neex bi Bonne Sofia ngi leen di jaajëfal di leen souhaiter un bon ramadan donc Bonne Sofia ak Alphie leen jox dig daje suba incha allah pour beneen set